départ bi kenn gëmu ko woon bi may wax coupe du maire nit ñi dañoo jàpp ne warta mun a nekk parce que soo seetloo lu mel ni ODCAV Kaolack ci biir commune bi mu am 76 ASC ñu toog atum lëmb joué wuñ joueurs yi dem nañ seen yoon ASC amatuñ amatuñ bi ñu koy wax dañ ma demandé woon seen nañ ko def par carte d'identité mais carte d'identité bi enjeu bi day bëri histoire yi day bëri te aussi du ko jar on a dit que on va dañuy respecter li nga xam ne moom la ñu suñ texte jox ñu jouer ak licence CQRP yi di dem ku def réserve aussi dañ koy appliquer donc tey ñu commencé ko wax dëgg yàlla population bi ñëw nañ tuuti ñu ngi leen di ñu gën a ñëwaat parce que début bi mel noonu parce que ASC yëpp dañoo démobiliser wu mais tay su lii aussi gis ngeen football bi ni démé amul ben incident lu ki gañu té suma joggé fi dina dinaa dem au niveau de l'hôpital situation bi lan la parce que suñu devoir la pour ñu accompagner aussi nit ñi donc organisation bi jàll na yoon et faté woon ko en français la mairie aussi indi na une forte délégation représentée aussi par mon frère mon ami, qui est aussi un partenaire de l'ORECAB, qui a beaucoup fait pour que Coupe du Maire, en l'occurrence, Moussa Hassan et Nimo Andal, mais aussi non le mel parce qu'il est du milieu aussi. Donc, avec Nimo Andal, donc affaire a commencé. jël forme bi mu jël donc mais suñ ko mënee aussi li ñuy wax rek euh, doom xaw ma nu mu tëdd xele su kii ndey jaa ndey jaa tee ca mbagg ba donc ñun aussi ñu am suñu ginaaw un maire boo xam ne suñu diggante ak ñoom du politique moo ko laal parce que suñu organisation apolitique lañ mais reconnue d'utilité publique comme ni ma koy waxee suñ nekk ay ASC nekk ay zone action bu mairie action bu keneen di def nek ci état bi mu dem ci quartier mu dem ci ñun dañ donc lool mo war a sun suñu mom aussi comprendre vraiment accompagner ci suñ ko mëne tay ñun la la parce que tay ñepp xam nañ ne je koy da ngay soxla ay recette bien vrai que coupe du maire depuis fi ba coupe du maire bi millions la mais ren bi ñu ñëwee wax ko na ko amuñu ay entrée te suñu buggee jël en charge organisation bi yooyu cinq millions yi def ko moom def ma ne proposé leen ma man sax su ma yeewoo su ma yëgoon sax ma ko dix millions mais ma proposé six millions quatre cent cinquante mu ne ma d' accord. maa ngi rëccu sa li tax yokku ma affaire parce que ay coon bee ci nekkaat mais loolu rek di wax que ne aussi dañ koy gërëm di ko sant parce que loolu lañ doon xaar ci moom xaaruñ lenn ci moom parce que soo ñëwee jiite une commune da ngay won sa bopp que ne ñëpp laa fi nekkal te loolu la taxawee et occasion la ñu waxaat yeneen yoo xam ne def na ko parce que wax nañ ko keroog muy ci club civil bi li ñu mën a wax rek que ne nawetaan benn la dañuy oowaat encore ñëpp ñoo xam ne ñoo ŋànk sport bi muy club civil bi muy nawetaan ñoo xam ne benn famille lañ li ñu soxal mooy la na football bi jëm kanam football bi suñ buggee mu jëm kanam ñëpp lañ war a mën a tàllal loxo terrain yi ñu tànn mooy que dañ ne woon ci politique bi dañ koy décentraliser pour que tey koñ yi sant ne coupe du maire am na ndax at bi ñu toog te jow ñu choisiroon terrain bustaan choisir terrain déggoo bi nga xam ne jot na cee def ay mbir ñu koy ñaan aussi mu doon pelouse synthétique dégg naa sax am na benn boy bu nekk ci côté xaw ma monsieur le maire Amar donc ñu wax ko ne camp yi baaxul donc pour que aussi ñu jëm cee ñu jëm cee taxaw tuuti defaraat ko aussi terrain ngaan am na loolu yëpp dañ ko bëgg a def pour gars yi gën a sentir ne coupe du maire bi existé la quoi dañoo ñëw ci délégation bi tegal fi monsieur le maire bi nga xam ne dafa am ci yenn activité yu mu dem Dakar tey délégation bi mu ngi ànd ak ay conseillers ànd ak ay responsable ànd nawle ànd ak aussi des membres a la du comité technique bi nga xam ko fi teg pour ñu ñëw ne mooy démarrage coupe du maire tey ñu ñëw fi nag vraiment ànd ak une forte délégation comme ni ñu ko waxee euh, di wax ne maire dafa jàpp ODCAV ci partenaires yi nga xamante ne vraiment ay partenaires yoo xamante ne ñu dëgër la te ñoom ñu wone ko moo waral tey suñu teewaay fii ci bés bi. tey ñu ngi organiser terrain yi euh, match yi ci terrain vague yi ñu ko waxee terrain xamante ne commencé woon nañ def ay travaux parce que maire moo diggee woon bi muy def campagne am ne dana may terrain ay defar ay terrain ci quartier yi ñu tàmbale woon ko fii mu am ay jafe-jafe nag ak entrepreneur bi tey yaakaar naa ne ci fan yu néew situation boobu dina débloqué ba mun mën a continuer les travaux continuer defar terrain yi nga xamante ne ñoom lañ sumboon pour mun di abriter des rencontres comme yu mel ni coupe du maire bi nga xamante ne ren dañoo amul fu ko defee parce que amuñu stade ak ainsi de suite donc tey defe naa président wax na ko léegi ñu ngi jël terrain bi ñu ngi jël terrain bu san te ñaari terrain yi ñoo newoon priorité pour la forme euh, comment la construction donc ñu japp ne euh, xeyna fi ak deewon inshallah rabbi dañ ci gëna mëna jëmlu jëmmal terrain yoy ba nga xamne ëlëk lepp luñ ci sublu ci compétition dañ ko ci wara mëna defé dal ndaw yi dima leen wax ne rek ne leen monsieur maire mu ngi nekk à la disposition parce que japp ne na daw kenn dundul nawetan mu na ren jaral nako lu mu munti jar dañ ko def ñu au moins nit ñi nga xamne sport da leen japp surtout ndaw ñi ñu mëna am luñu bëgge donc koku ko moy bayé na leen xel te bayé na leen xel bu moy lepp lo alter war ci war nako ci sport monsieur le maire def nako joxé na ay subvention tambali na construction ay stade de terrain de quartier te it ren tey xam ne ay jafé jafé yo xamante lu tar la lañ def pour mun euh, soutenir coupe maire bi parce que ku ne xam na enveloppe bi nga xamné moom lañ réservé ci maire bi pour coupe bi 5 millions la te tey organisation bi dem na lu ëpp 6 millions te loolu yëpp bëggal jeunesse bi nga xamante ne moo nekk ci Kaolack commune moo lay jubluwaayu monsieur le maire moo tax mu attan ko daa ngi dégg léegi sax euh, le président Odeka mu naan su ma xamoon wax ko millions waaye wóor na ma ne lépp lu ñu ko waxoon rek jaral na ko ko parce que jeunesse am jaral nañ ko ko kon kooku tey taxaw na ci kanamu jeunesse bi pour jàppale leen seet seen bëgg-bëgg ñu mën a jouir ci seen i vacances xamante ne moom la ñu am parce que dañ ko tàmmoon di am